والمدينة قرب من متلفون سعيد لا يكون حرخا في بيته وسوده سيدنا إمام أفضل الخلق السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ثم الصلاة والسلام ملازما على رسول المصطفى مكرما محمد رسول الله اللهم إنا نحمدك على ما علمت من البيان وألهمت من التبيان كما نحمدك على ما أصبحت من الغطاي وأسفلت من الغطاء ونعوذ بك من سرة اللسن وفضول الهذر كما نعوذ بك من مارة اللبن لا لا لا لا لا لا لا Makin nak buat mama lain. Jadi jadi jadi di bawah di bas. Waman unyong unyong kik sahaja. mu jottali ci sa wet nga noonu defal ma ko bàyyi Ablaye dina yegg sa incha allah. yal na ko yàlla fay ku ko toppandoo. bu leen yàq jàng yi. desee bokk desee bokk. waaw toogal tuuti may ma rek. Ah, waaye waxuma bu leen ñëw de. waaye da ngeen may may tuuti ma nuyoo. la ilaha illallah. yal na leen yàlla fay ku leen toppandoo. yal na la yàlla fay. tubarkal. waaw jokkal ci sa wet rek bu ko joxee kooku mu is si raan rek. dina is ci incha allah. mbokki islam yi. mbokki ki deret yi moo ki am di jàmm yi moo ki dëkkandoo yi moo fi teew ak yu teewul yi te yàlla nar noo boole kaar boolu teraanga ban teraanga teraangay islaam ñu nat ko seddo si barke borom wote bi yalla na yalla defal bolu teranga bo li ma jiital mooy mbokki islaam yi lu tax ma jital ko bokk na si képp ku amoon waaye nga am alal lol da bokku len diine lu mu doon sa wajur wajur ngay julit bis boobu jegee moomul dara ci alal ci ak soo mën a yokk nag kon ñun ginnaaw yàlla diine moo ñu fi indi yàlla na diine am ndam di nuyu ñëpp di jéggalu ñëpp nuyoo bi nag duñ koy tënk jëkkee ko ci boroom dëkk bi teg ci imaam ak i notable ñu limee imaam rek yóbbaale na mbooleem ku bokk ci keppaaram nuyuwaale Baye Libaas ak Baye Ibrahima Boy mu yóbbaale mbooleem ku bokk ci keppaaram du nuyu Baye Amar Kazalika du nuyu kilifa yi teew yépp ndax ku lim juum ndax daañu daanu dañuy suuf kon ñu ngi nuyu ñépp di ziyaar di baal nyep ak di ñaan yàlla iya kan, iya nu yalla boole baal di jikul ñi fi teew ñep ndax dañoo bayyi seen yitte ngir ñun ta xam-xam bi matew ko du da a wax bu gën fee rafet kaar do tax rafet na kaar ma sha allah waaye du looloo tax ñu andi ñu fi kon yaakaar la ak natt bi yalla kon yalla nu yàlla le ba natt bobu ak go boobu ñu mën ko matale ci barka ma Baay mbokay tay dañu ñu ngir waxtane ben waxu sayidina Limaamu alayhi salatu wassalam muy wax bu am gat bu gat te tënk di jamono ben wax la ci khutba bi waye nak teunk na aduna loolu mooy sunu thème ak ñëw Seydina Limaamu alayhi salaatu wa salaam si aaxiru zamaan di confirmer ne dëgg la waaye gën a dëggal ak gën a dëgëral ñun ñi bokk ci moom na moom la. bu njëkk bi moo di aaxiru zamaan moom la ñuy tàmbalee ndax Seydina Limaamu dama wax benn wax bu gàtt. waaye ëmb na lépp lu mu wax ilamu anna zamana ilamu anna zamana waaw ma bay ma tuuti ma ñëw toogal tuuti ma ñëw waaye am sa yaram daa tàng ne ma tuuti rek ah, kii mooy Baye Amar Baye Amar loolu jaadu na ne ma tuuti rek tey def leen nii waay Baye lay dafa wax ni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 اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد إلى آخر الآية بين اعلموا أن زمان اقترب واختلط وذلك فناء góor gi nee na jamono yi yëmbu na jaxasoo na jamono bi lëj na ñu ne ko waaw mu ne loolu màndarga la ci àdduna léegi mu tukki bay lay na nag ana balaxtu jotal naa de yàlla daf maa wax loo wax naa waaye nag yàlla am na lu mu lay wax si alquran ñu ne ka lan la góor gi bismillahi rahmani rahim wa amma man taxa wa aasara alxayaata addunia fa inna aljahima hiya almawa waaye nag bu leen fàtte yàlla nee na fa amma man xaafa maqaama rabbihi ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى jotal naa wax naa leen fi àdduna jëm waaye nag dinaa leen wax lan mooy solution bu ngeen tolloo si jamono jooju nee na képp ku topp li ma ma borom yàlla dina récompenser aljanna ju neex la gën a neex si aljanna doo feebar doo wokk doo subur doo tufli sa xel du teey amul sangu amul tàngaay amul dara. amiin barka bàyyi la nee na foofu laa bëgg a ak yéen waaye nag ku topp weneen yoon yi ah yàlla bu ñu fa yàlla jóob saxiir gay ne ko way woowu nga wax yow bàyyi lay phrase boobu comme que waa jamono dégguñu ko Baik ma dem si ak ñoom ñu ne ko sa yeggee looy wax adduniya bi tax di ko ngoon te moom du dal du sax si biir biir du ngay bàyyi muy dal baaw sa yeggee di tomboon te moom Dạ, mình sati mende bingirde dukai bai ngoi daba ya mitang lui khair dutom mon tamom được da ak sa morom barka Baye Laye jox ko loxo nga jéggalu. boo ko mënta jox loxo rax sa lool sa xol bu ngeen demee kër gi ngeen duggaat jàmm barka Baye Laye. dama bëgg ngeen may ma tuuti rek. yow mii ñu xam nga ne yow. lu lislaam xamal mu la. mun bi yeyoo saba. nga leen ma tuuti ma yeggal li ma bëgg a wax. ngir yàlla bu kenn daaj. riim leen rek ku ma daanalee rek ngeen daana. ba karaañu yegg. sa xel nee na adduniyaa mi tax ñuy xeeñ. ditunggonte mondudar usah diwide-wide kuhai bayi muy dal ba aduna gi tax ngeen xeex ci alal ya Si susah sa sa newetaan ja sa ya saya neen bu leen ko dara jaral ndax aduna du ab dal ñu ne ñu ngi fi toog mu la waxuma loolu lu dal buy sax ci mbindeef lu tax du ñu sax mu ne dee bu sax ci mbindeef ngir dee du koy bàyyi muy ngal faa ñun ñëpp dañoo bëgg di sax ci àdduna gudd fan lool waaye dee moo ñu fi bàyyi kon est jar na tongoo gi meroo gi defande abadan abadan jar wallahi naa si amul dara jar ci àdduna jullit di tongox moroomam du suuf du jigéen du ay immeuble du ay oto du daray daray àdduna lu war a tax nga war a ak sa mbokkum jullit ndax rasulullaay nee bisub alxemes ak bisub altine yàlla damay indil bépp jëf bu sama xeet indi may ñaanal ñëpp njéggal nag di vérifier dossier yi ba mu des ñaar seen dossier bu ñëwee du ko laal dama koy tegee nene ñu ne ko Rasulullah la muy ñaar ñu tomb seen dossier bis bu ko yàlla ëndee ci ak jeudi ñoom ñaar du xool seen dossier ba karaa ñuy jubboowaat kon adduna bi tax nuy xeex di fangoo te moom du mel jiital kuréel ngir daw gërëm naa te ngeen ngeen wër sagam jël ku xam muy fee te ginnaaw ca jaabi laaw ma xëy ma lay nga gaay dégg argument yi dañuy jiital kuréel lu tax ngir daw meram maa di em em wër sagam jël ku xam muy fee inna lillahi al-mal loolu am wala am adduniya adduna bi dañuy jiital ku réer ngir daw meram mbaa xem xem wër sëgëm jël bu xam muy fee inna lillahi al-mal waaye daa ngeen teew nga leen jiitu ku ngeen jiital ci adduna naa am confidence ah waaye Ousmane lii nga ko defee ñaw ñaw. daanaka yàlla def benn nekk juróom fukki milliard barka maam Baay Laay ak sa yaakaar sëñ Babacar naan na la yàlla Ousmane lii day kenn gis ko nag kenn gis ko xaalis say daara la. ah. gars yi lii moo tax xaalis baax ni bàyyi Ousmane Deme nii bu ngeen def sama baat bi léegi mu naay xaalis daal di ñëpp am xaalis xaalis baax na de bu leew nag. waaye benn matériel bu mu war a mën jënd amuñuy pass rasulullah yi jàllale mission bi information bi nag jullit ñi amuñu armée bu ñu war a xeexaat waa mu tatar kenn amul xaalis Ousmane Ibn Affan milliardaire la woon financé guerre yëpp jëndal jullit ñëpp ay armée jëndal leen ay pass jëndal leen ay jaas lépp lu ñu soxlaa mu jënd guddi googu la rasulullah dinaa ne naabil ba asamaan sax mu musalo di xalal sahaaba ngir xaalis boobu Ousmane financé guerre bi mu ne bis ni ki tey Ousmane mënatul dem yi bàkkaar boo xam ne yàlla daf ko fay topp yàlla na topp bàyyi baay ni Ousmane si doole ne moo koy kersa Ousmane I ko sakkal tumak fi ngeen toll si alal wala daraja wala ngir askan Saxiir Gaye nee billaahi bis bu ngeen ko defee jiital leen ku am compétence ku ragal yàlla ku am xam-xam kuy bàyyi aw askanam xel mbaa adduna di looloo ñu daal di jiital kuréel ngir daw meram laa di xel mu wër sëgëm jël ku xam muy féete ginnaaw ca jaahil ba yéemaat nañu si dañuy jël ki yàlla def mu am xam-xam def ko ci ginnaaw jël ku xamul dara nekk ci kanam di leen wërsëgam nee na mu leen dal lu si saxir ngay di màggal borom am-am di leen wërsëgam magel borong am-am direwa segeng ya disuhel borong ham-ham kireknya kabau kerbau di magel borong am-am direwa segeng ya disuhel borong ham-ham kireknya kabau kerbau Oke. Okay. Lima aksi jangan mulai dia. Dah jam mana jam ha? Lai bu juga tak ada kepada aku dek. Wow wow. Lo juga saku dek. Wajib leh ni dah kor leh tuai. Abdullah juga lu tak ya. toll jamono yoo xam ne nit dina nettali si moroomam doomu aadamaam lu tax ndax da koo mere nekkul ak soppeem nekkul ku ko neex ba léegi nag ngeen demee ba foofu kooku lay nettali lu safaanu rek lu baax lay nettali ci moom te amaana la muy nettali wallaahi wóor na nga ni dara si dëgg bu ngeen demee ba jamono jooju tiit leen. te bàyyi lay ngeen xutba bi haamu naan maa wa saabu ay bu ngeen yeggee foofu xutba baa ngi ndox ak saabu la bu ngeen ko jëfandikoo rek set wi ñu ne ko ak la naan wa ru'yatul fadli ala al ayn fa ngeen jëm mooy xool nit ci bëtu maa la gën ndax dinañu toll jamono joo xam ne di nga bokk ak nit benn ëtt benn askan benn famille ngeen yeewoo ndoo di añandoo du reerandoo fekk mu ngay xool bëtu yow baadoo la nga doo dara maa la góor gi nee na mu leen dal mu ne ak jan jamono wa isa tumina xaana bi ngeen toll jamono joo xam ne di àndal nit guddee bëccëg ay pexem yëpp mooy nu mu la wooree loolu am wala déet koy àndal mu xamal la sa lépp mu ngay xëy suba ba ngoon bëgg-bëggaan yëpp mooy nu mu la wooree ba la mu ne ngeen tollu jamono yoo xam ne wa isa xaasama fajara nit koo xulool bëgg-bëggaan mu jë moy nu la sosare sosaree rawatina sunu mbokk yi soxna yu baax yi fuuloo amee yow nu ñu la sosare rek bo xam ne ah buloo buloo la dinañu sos di la yàqal di la yàqal wallaahi te yëgoo ndax buloo bi ngeen buloo am na wala am bayal yi di ngeen tol ba jamono joo xam ne violence bi day tasaaroo ci aduna ci kara jabar xiiroo ŋaayoo dañuy maslaa rek kenn ku nekk booy wax jëmale sa morom ere nga koy waxee moo tax kër yaa ngi mel ni ay néew ay néew armée la kenn wax ay fii li ay néew moo tax kër yi ndax bàyyaat doom yaay ak jëkkër fa lay tàmbalee xiiroo ŋaayoo loolu yu rogaatal bëcc si doom moo tax kër yu bëri dañuy masaa rek waaye la bu waxoon bu ngeen demee ba violence bi bëri dina wax ci si diggante jëkkër ak jabar ñu ne ko mun a wax yi pour xooloo di ngeen tollu jamono yoo xam ne gars yi seen xol yi day xat kenn amatul. yaa ngi xool boo xam di nga xaajal sa benn mbokkum jullit li lay jox firnde wala yow duggee si jàkka yi rek ku ñu defar gis ay tànk day moket yi day am benn rëdd ëllëg ko ñu ànd def benn sàppe ñëpp waaye kenn ko kenn ko rek ñi nga wax nit mu bu xat boobu ñeemaloo ñu ko si dëkk sax dañu koy yóbbu wallaay naa ngi moo teg bët da mu xool ni li ma sàmm day ayara pour lan la si aaxiru zaman góor yi nee na dinañ toll jamono joo xam ne wal mutashabbihaani min annisaai bi rijaal wal mutashabbihiina min arrijaali bi nisaa di ngeen toll jamono

jigéen laa bëgg a nekk bàyyi naka góor naka yàlla defee góor di def style jigéen góor ñi léegi ñooy jënd yooyu gars yi du natt fii góor yi kan ngay jënd koo gis ku ñaar dox lépp si man da ngay àññeem sama ndox góor ak la mu ne jigéen dem ñu jàppee bàyyi lay waxee ni mooy rëy. Nyari kategori. ko rasulullah dem do musa waxtane reuy di wax ci reuy la yaqulul jannata man kana fi khalbi misal min ibrin fa hala ya rasulullah anna rajula fi ba'yakuna sawbu hasan ونعله حسن فقال رسول صلى الله عليه وسلم jërëjëf ay libaas yàlla na yàlla barke هذا ليس بالكبر فإنما الكبر بطن الحق وعمد الناس yonent bi dafa doon Moussa waxtaane rëy benn waay nekk ci wetam bu

batalul xaq koo xam ne kenn ku ko wax dëgg ba mu nangu ko foofu la aaxiru zaman toll ñu nekk ak lan wa ixtixaaru naas kuy xeeb nit ñi bu la yàlla dénkee tuuti taar wala nga am famille boo bokk tuuti wala nga yor tuuti nombre tànk xeeb askan bi yëpp Rasulullah nee na ñaar yooyu mooy rëy ku dul nangu dëgg ak koo xam ne day xeeb doomu aadama yi ci loolu ñu toll société boo xam ne soxna amul droit wax jëkkëram dëgg góor yi ñoom rek ñooy waxaate dëgg waaye jigéen ñi li ñu leen wax dëgg loolu am ko sox sax mu ne du sa moroom doo wax dëgg ndax rasulullaay koroo bu muy def xajjatul widaa ba mu jëkkee waaj mu esek ba kor ba am soxnaam mu jamilu am na benn soxnaam boo xam ne moo xelal na mu war a mën a ak nit ñi mu d'accord ci loolu waaye nag jëkkër war naa nangu soxnaam wax dëgg ci kaw ay teggin booy wax sa jëkkër ay teg ay euh, dëgg da ngay won sangul rafet sol ne loolu teg ngañ lu neex léegi nag boo koy wax nag day xaraayal boppam ñu ngi jaay yow kilifa bu ngay def ni du sa waree te lii bu amee gàcce am di ray boppam ak noppam waaw dina tax ñu te moom fële bu gën a bopp waaye boo ñëwee ci ñett day yàq dëgg ñett day yàq dëgg. waaw ba nag du sa wax dëgg. waaw ñëpp ba daje nañu nga war a wax dëgg ruus ko dëgg ba day yàq. fan la war a waxee dëgg am na bërëb yoo xam ne boo dëgg donte ni am de dëgg ga ak nan nga war a mën ngaa am dëgg waaye nag waxi nga dëgg kon loolu ñu bàyyi xel woo ko yelloo aaxiru zamaan góor gi nee na di ngeen toll jamono yoo xam ne intérêt yi askan wi yëpp lu ñu war a mën a bokk benn nit taxaw sacré bi askan wi yëpp wala dëkk bi yëpp ngir mel na moom loo xam ne Sénégal bi yëpp ñoo si war a am intérêt da jaaral ko ci yoon wala boo ko jaaralee yoon dëkk bi yëpp ñoo si war am intérêt. yow fenn nit wala yow ñaar wala yow ñett ngeen sacrifice wa dëkk bi yëpp wala ngir def sacrifice atum yëpp ngir yeen seen intérêt bok wor gi nee bokk na ci si mandargay aaxiru zaman bokk na ci si mandargay aaxiru zaman ba tay ñak ak yar gi di ci xalé yi le gëna a di war ñi wara yaré ñom la seen biar yar man kon ki ñu wara yar fa la jëm xalé bi ñu wara yar ki ka wara yar am yaram matul kon kok ñu wara yar ci mu jëm bokku la àdduna toll bokk na ci mandar yi ay sama ba tey sosol nit di waat na maa ko fekk te yow wallaahi leer na ne li ngay sosol doomu aadama bi amul te nit ñi nag fi ñu toll dañu lay kitaabu si lillaahi na maa ko fekk te li ngay wax yëpp ay sos la yoo xam ne ni amul ci adduna àllaaxira bokk na si aaxiru zamaan kenn jogatul di dox ci diggante ñaari nit ñu yàqu ndax Jibril dafa mus a toog ñëw ci Rasulullah naka man day dama ngéeju bu ma yëgoon mbaa bu ma yàlla tàggu woon nit lay doon Moustapha ne ko lu tax mu ne dafa am ñaar yoo xam ne yàlla daf see denc xéewal boo xam ne tuyaaba ja sa nekk tuyaaba boobu bëgguma mu rëcc ma ma yëg bu ma yàlla tàggu woon daf may def rasulullah naka yan ñaar la mu nekk ñaari rakki fajar yàlla denk na ci loo xam ne ci ngëneel bu ma yàlla tàggu woon dinaa naka may ma ma nekk nit ngir di julli ñaari rakki fajar mu nekk ak lan mu ne dox diggante ñaari nit yu féewaloo tuyaaba ja ca nekk bu ko nit ñi xamoon dinañu wër xëy di wër adduna bi diggante boo yàq bu yàqu nga fexe di ko defaraat te jamono ji ñuy toll nii kenn doxutul ci si diggante ñaari nit ñu yàqu fa aaxiru zaman gën a tollooti njaaloo gi tas na si adduna bi nit ñaa ngi mel ni ay béy li ci gën a yéeme sax alxayri xewi na ndax ku amul soxna li mun a mën a wax si sëy yow mi am soxna xamoo ko wallaahi ñi amul soxna li ñu la mën a wax ak yenn poñ yi ñu la mën a wax si sëy yow ni am soxna xamoo lépp si màndargay axiru zaman góor gi delluwaat waxaat ba tey ni wala tanzuru uyuba aynikum wa man arada an tazura uyubahu falyanbis guyuba xayri mu ne foo fekk nit koo xam ne sikki jàmbur rek moo ko ñor moom rek lay xëy di lijjanti te bàyyi moom sikkoom soo xam ne mat na ton xëy di lijjanti kaasu jàmbur loolu mooy li xew si aaxiru zaman xëy di lijjanti sikku jàmbur di bàyyi say sikk góor gi nee na bu ngeen demee ba axiru lii xew ko wàññi leen ak lu maalul yatiim fekk jirim bu bàyyam génn adduna bàyyi fa alal bàyyi fa ay suuf bàyyi ko lu bëri ngir ak njabootam ngay des say man-man say pexe sa jubadi ba jël alal ji yëpp féetale ko sa bopp loolu rek am na si àdduna suñu borom nee na allah